Sénégal gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ah a dem na yóbbu say xaafiya kenn amatul salaamatan waafiya Seex Anta sa dem gi am na firnde. yaa neex a taarix day na sëkk mooy mook Serigne Touba noo bokk lépp ñoo bokk. sëñ Mbacke moo doon seli waaye ku xam soxna Anta Ndiaye xam cër bi mu am xam kam doonaat sëriñ Tuubaa maam Cheikh Anta nag jaay loolu lépp jënde ko ak taalibe bi pas pasub seen ndey ja ak yitteem ju kawe dogoom ak farloom ak bëggam lu baax waaye setub xolam moo ko may mu mën a fàggu ñaari góor yàlla yi leen dànn ci asamaan si ñu jant ak weer ñu xam lool cër ba ci asamaan si am tax ñu mucc ci kujje ak parparloo ñoo naa di maam Cheikh Anta Mbàkke borom gaawaan gane àdduna ci atum ak rakkan bu baax ja cheikh ahmadul muxtaar borom aafiya ñu gën koo xam ci sëriñ aafiya mbàkke gane àdduna ci atum 1871 ca poroxaan te maam Cheikh Anta sëñ magama baayub sëriñ tubaa nijaayi maam Cheikh la yaayi maam Cheikh Anta bàjjanub sëriñ la ba noppi maam Cheikh Anta di nijaayi sëñ tubaa bu nu ñëwee ci waajuram wu jigéen li mu def ci yoonu murit ñëpp xam nañ ko ba Cheikh Souhaï bu Mbàkke ibnu Xaadimu Rasuul da daan wax naan soxna Anta Njaay de bu jiitu woon alxuraan foofu alxuraan dana ko tudd bis bam ganee adduna réewum saarum fa poroxaan saay nopp ne leen maalum bi yàlla dogalee muy seen jamono rek ginnaaw soxna jaara ñetti weer ndax fekkante wut ak soxna jaara jamono ca poroxaan bis boobu wax na ne moom ñetti téere la daan takk ñetti téere ñetti téere yi benn bi sambatu Tukulóor kaa ko bind benn bi sëñ Mbàkke Mor Anta Sëlee ko bind benn bi Sëriñ Tuubaa ko bind ci loxoom ñetti téere yooyu moo njëkk kero bi mu feeñee jamono ñetti téere yooyu lañ ko njëkk a jox sëñ Tuubaa moo moo bindu téere jox ko soxna Anta Ndiaye na ko jamb ko te naan bindaat beneen na ko gan googu bu agsee na ko takk kon mën nañu wax ne kon booba la jox bopp sëñ Tuubaa ñooy saahir ak baatin ci Sëriñ Tuubaa seen jur soxna maam Anta Njaay Mbàkke teel a xam loolu sëriñ bi jébbal ko boppam ak njabootam ñu bokk ak sëriñ bu mag bi benn way jur muy sëriñ Mor Anta Sali Mbàkke mu yar leen jàngal leen jébbal leen sëriñ daam mu mottali seeni àlluwa bi nga xamante ni mat naa jàng alquran am njàng mu ngi tënku woon ci ku ñuy wax sëñ Cheikh Abdourahman loo wala bokk ñu ko jàngal bari na waaye moom moo ci gën a siiw ginnaaw bu jógee ci sëñ Abdourahman Lo Eh, mu nga jànge ci magam borom saam muy Mamor Diarra magi Serigne Touba moo ko jàngal xam-xam ginnaaw bu jógee ci loolu nag ci la door tënku ci ak tarbiyaw ci loxoy Cheikhul Khadim magam ja radiyallahu anhu ñu jaar ci Mamor Diarra ak Cheikhul Khadim mokkal fa mokkal gu rafet géeju fa lool ci mboolem fànn xam-xam yi. lu yéeme la soxna Anta Ndiaye moo njëkk ci kër sëñ Mbacke Mor Anta Sali ku fa ñëw fa ko fekk. ba noppi moo fa mujj ndax moom moom képp ànd dëkk dëkk deqale loolu kon lu yéeme la waaye bi muy génn àdduna moom la fa fekk moo ko wax ne ko sa mag ji kat ko bëggee woon te toppee ko ni am na leneen lu ci nekk loo xamante ne bii danaa la ko laabiir mu ne ko lu mu mu ne ko sa baay jébbal na ko boppam mu ne ko nu mu ko wax ba mu koy wax mu sa ko baat ya bi sëñ Tuubaa génnee ci néew rek maam Cheikh Anta taxaw ci tànkam wax ko loolu na ko jébbal naa la sama bopp àdduna loolu kon tegtale na mu ci ñi njëkk a mu tarbiyoo ko nag diggante Mbacke Kajoor ba Mbacke Bawol ba Daaru Salaam. Cheikh Sidil Mokhtar ñu gën koo xam ci maam Cheikh Anta Mbacke bëggoon sëriñ bi lool sopp ko lool topp ko toppin wu rafet fépp fu mu mësa nekk mu fekk ko fa lépp lu mu mës a yittewoo mu wutal ko ko lépp lu mu mësa liggéey jox na ko ko. mas naa ñëw la Serigne Touba ñaas ma sa bambara laa jaay ma sab jaam laa sëf ma sa mbaam laa jaay li mu bokkoon ak Serigne Touba lépp. li Moussa Ka wax ni sëñ Touba yonent bi def ko ne Cheikh Anta na yor sa saayir ma yor sa baatin. loolu sax comme comme moom alalam ju bari jooju wax nañu daana ci joxe féetali sëñ Touba képp koo xamante ne bi sëñ Touba waroon na laa defal man Cheikh Anta féete woowoon na engagement boobu pour yor la ko def def booba képp ko defal ci mbokk. mu boole alalam kon alalam mooy alali sëñ Touba doonoon koo xam ne ko daan dimbale réew mi la moom Cheikh Anta maam Cheikh Anta nag man looloo taxoon ma doon liggéey di wut xaalis keroog ba sëñ bi wàccee liggéey la maam Cheikh bàyyi na 88 foncier yoo xam ne waatu ci dara. dañuy wax ne mas na am bis boo xam ne jël na fi ceeb boo xam ne douze mille tonnes mat na ko séddale ko waa réew mépp nga xam daf daan dimbalee moo fi ànd turu seexal ci yoonu murit ndax moom la sëriñ bi rafaatale daaru salaam boole ci juróom-ñeent ak juróom-ñeent ci taalibe tax képp ku sëriñ bi gërëmati ñu ni defal na ko la mu defaloon maam Cheikh Anta ki jëkk seex ci yoonu fukki at ak juróom-ñeent nga amul dëkk waaye yemoo ca ami dong sëñ Tuubaa ba tey lépp sëñ Tuubaa dafa wax ni foofu la ko yàlla njëkk may ci kun fa suul mu texe daawut wax ni kuñ fa mu texe waaye dafa ne waxuma ne kuy tooñ du fi dugg de waaye malaake mi toppi tooñ xamu fi bisub talaata la ko gore si ki sëñ Musaa wax kon bisub talaata fukk fan ak juróom ñett ci weeru safara yi ñu màggal ku baax yi mooy sancub ek satt Daaru Salaam bàyyi ko Mbàkke Bawal ñu naan ko déedi mu sanc fa wetam daaru salaam ngir bañ lu xeetooki xaraam ak i malaam waaye bi izni minallaahi bi izni minallaahi mu ñëw ba ci barab borom gaawan boobu moom mooy première bu Sëriñ Tuubaa am ci kaw suuf li daaru salaam. muy jot daaru moom fukki at ak juróom-ñeent la am Sëriñ dafa gis leeruk Tuubaa ginnaaw bu sëñ Modou Moustapha ganee àdduna sëñ Fallou ganee àdduna ñu sanc Tuubaa ci sanc Tuubaa bu bees ci la sëñ Modou Mamoun ganee àdduna. bis bi mu gënee àdduna ci la yaayam génn àdduna ci jamono jooju nag la sëñ Touba woolu maam Cheikh mu ñëw mu ne ko seex mu ne ko Mbàkke mu ne ko daaray Daaru Salaam ji ñaata nit moo ci ne ginnaaw bu Seex Ibra amee ngërëmul yàlla mu ne ko daaray Daaru Salaam de ba ma fa demee juróom-ñeent fukki nit laa fa fekk ak juróom-ñeent mu ne ko fanaanul ca daara ja maam Cheikh fanaan ca daara ja defe na day delluwaat ci ak tarbiya ban suba ban xëyee sëñ Touba ne ko seex mu ne ko Mbàkke mu ne ko rafaatale naa la daara ji ak dëkk bi kon loolu ci la ko joxee dëkk boobu di Daaru Salaam. mu nekk Daaru Salaam goo xam ne. gelax walaam day wuññi ay lëndëm. daal di ñëw bu mu ko sañcee rek defar ki ni jumaay sàkkatam yooyu wala jàkkee sàkkatam yooyu première prière bi ñu ci julli sëñ bee nodd loolu loolu tawfiixu Daaru Salaam la loolu mag ñëpp ko ne bu ñu noddee pare diggante timis ak gee sëñ bi jiite sikar si dikrullah ki ñuy wax dikrullah yoonu murid yi ñuy wax ñu doon fii la ko njëkk a dëbbee mu ko baax maam Cheikh amoon taw tawféex loolu ci sëriñ bi fekk na ko Gabon yët ko ay teraanga téere ya fa sëriñ bi taalifoon moom la ko jox mu jaar Égypte mool ko andil ko murid yi sëri ca ba mu demee Gabon maam Cheikh bi muy génn fii sax foonoo la génne ndax booba tubaab yi dañu ko doon tere mu génn bi muy génn tu ab naar bu tudd Deris Gunun la jël carte d'identité am ak passeport ndax maam Cheikh dafa xeesoon pecc ba mel ni naar ab naar libaane moo ko abal pièce ci la ko jële ma dellu wax leen fi yeneeni xar baax ngeen xam ni Sidi Anta Mbàkke moo baax ba daamamee juróomi at maa yomba ak i Konaakiri ku nekk i lambu ñuy génne taalibe yi murit yi Tuuba ngir bëgg lislaam fay yëgal ni booba bi mu wàccee Gabon di wër sëñ bi boobu sëñ Modou Lo Dagana moo ko wax ne ko gis na sëñ bi waaye fa mu ne fa la sëñ ba ne kenn mënu faa jote mu gis ab militaire ne yow man de dafa am ku may seet ko ah am na ku ne ci camp bi mu ne ko ñaata laa mën a def ba mën faa dem mu ne ko ah, kay kenn mënu faa yegg mu ne ko yow ñaata ngay fayeeku mu ne ko man ñeenti ñeenti dërëm mu ne ko ñeenti téeméer ngi mënu ne ko ah lii sax de commandant bi xaj na ci <laughs> ci la daal di ko yóbbu fa sëñ ba nekkoon man dem naa ba foofa maanaam ci entre bi camp militaire bi ngay jot boo duggee sa càmmoñ centre commercial ngay jot sa ndeyjoor interprète ba fa dëkk sëñ ba fa mu nekk ma nga sës ca dex ga diggante foofu ak camp militaire bi tax mënuñoo gisante ndax ay garga mbooseeg ay garab yi digg fa ne ay yoon yu sew rekk ka fa ne keroog bi nga xamee ni kooku fexe na ba commandant bi dugal ko bi muy egsi ci sëñ bi sëñ bi dafa taxaw ci bunt bi di ko teeru mu mu ne ko mu daal di ne sëñ Mën jaay Jóob demal bootal ma Seex Anta ñëw wàcceel ma ko ci lal bi ndax yonent bi laa fi toogaloon léegi moo mooma na sa rakk ji la gën a bëgg te nga gën koo bëgg mi ngi ñëw di la seet soo bëggee nag ah, euh, bi mu ñëwee mu boot lu maam seexante ne ko teg ko ci lal bi ndax damaa bëgg mu barkeelu ci lal bi wàccoon yonent bi wàccoon maam seex ne ko sañu ma toog mën a ko deet ndigal la ba mu ca toogee mu ne ko yonent bi moo fi moo fi moo fi moo fi jóge léegi moo ma xamal na ma yaa ngi ñëw soo bëggee ma woo ko nga siyaara ko mën ne ko dee dee ko siyaara ma di la siyaar <laughs> maam seexante ñëw daal di wat sëñ bi indil ko sérité ay jàllaa bi ay téere yi mu soxla woon ay tàndarma lu ne daan na ko nag fi mu toll yow rek laa bëgg nga ñibbisi ndax boo ñibbisiwul lislaam fay Sénégal ndax dañ naan li liñ mënaloon ñeneen ñi mënal lañ ne ko mën na ko mën na ko ñu daal di waxtaan ci loolu mu ne ko ah man de damaa damaa seet ni fii fu neex jaamu yàlla la dama naroon far liggéey bi bu ma teyit ma toog fi rek di jaamu yàlla mën na ko nag boo ñëwut lislaam fay sëñ Tuubaa dajale lim bind ci at mépp jox ko ko mu ne ko kon nag comme amatuma fa kër tubaab tas nañ sama kër xaaral ma tegtaloo alxuraan ci lu ubbee kaamil gi yem ci wala yaddu ila daari salaam yahdi man yasha ila siraatul mustaqim mu ne ko kon ngan gi yaa ko moom. <laughs> léegi nag téere yooyu maam Cheikh Anta bi mu fay jógee daa jaari Tunis jaari Égypte mool téere yi ci la njëkk indil ay ay xasida ñëw indil ko murid yi daal di jaar foofu jëndaale ay kaset alxuraan keroog keroog moo njëkk jox kaset alxuraan kaamil bu mat ci kaset mu jox ko sëñ mooy demal Serigne Touba Makka ndax ci naal yi Serigne Touba bàyyi woon la. maam Cheikh Anta. am tawféexi ajali Serigne Touba Makka aj gu rëy goog histoire yoonu murit du ko mës a fàtte alhaaji Fàllu Mbàkke la àndal ak alhaaji bu Buso alhaaji Serigne Takko moom fekke na ko keroog la jaar Marseille ak Misra jàll Liban ak Jidda keroog la xoddi pavillon ba woon ca Kaaba ga yot ko waa Touba barkeelu la woon diggante maqaama Ibrahima ak xabru Seydina Hamza mu gàddu ko dolli ca lamu Seydina sayyidatuna fatimatu zahra kii moo tabe te yëwan ndax ba muy dem màkka 80 titres fonciers la tayle yor 200 000 francs ci euh, louis d'or moom lañ daan wax louis d'or mooy ah, moom la moom la yor ci liquide def ko ay bon yi ci des xaalis bi kaamil bi mu doon jàngee la dugal paas bu ne mu dugal ci benn biir ne man ket fi mu toll sëñ laay ajali ndax bëggoon na ko te mënu ko ndax ba mu demee màkk la mu njëkk wax dafa ne pavillon Kaaba gi laa bëgg ñu jaay ma ko comme dañ koy soppi sa at mu ne mu ne damaa bëgg njox ñu ko loolu moom da ngaa njëgam mu ne da ngeen di seet ndax mën naa fexe ba bu bees bi ma fay ko ngeen jox ma bu ràbb bi naari daal dem seet bi gën a seer ñu wax ko ko mu daal di ko fay fa saa su ñu jox ko ci ay pexe noonu la def ba dem gaal gi nga xam ni mushaf bi njëkk dajale Seydina Ousmane dajale woon ko maanaam gaal googu ñu jaay ko ko keroog bañ ko koy jaay ñaari fatu lamu Fatimatu bint Rasul mi ngi ca biir mu jël loola dem na mu def ca Kaaba ga mu def ko ci pavillon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jox ko rapide mu dem def ko ci pavillon bi doon muur maqaam Ibrahima bagage yooyu dañ ko koo jox ba muy génn màkk naar yi ne nañ ko dab nanguwaat ko ndax lii warut génn màkk xamuñu fan lañ jaar ba mu ko indee bi nekkoon ci bërëbu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne ci biir bërëbu sëñ Touba fi fi toll ba mu jëlee woon ca maqaam Ibrahima moom la yóbbul maam Thierno Ibrahima ba mu jëlee woon ca bërëbu Seydina Amza moo nekk ci bërëbu maam Cheikh gaal ga ba tey boo demee Daaru Salaam gaal ga ma nga fa ak pavillon ba ñaari lam ya ca nekkoon ca biir soxna Maymuna Kubra bi nga xam ni sëñ Modou mën a ko yoroon ñaari lam yooyu moom la ko joxoon kon loolu wane ay bagages sëñ Touba la jëli woon ma del wax leen la ma gis ciy leetar yu bamba bindal seex di wax ay tiitar gis naa ca fukki leetar ak ñenant mbindum loxom seex bamba lii dum lënt waaw 1905 ci la sëñ gaawaan ñëw fii ñu commencé liggéey dëkk bi di wax toog lu li bu tooy 1905 la fi ñëw fii moom la sëñ gaawaan ñëw fii ànd ak ñooñu mu àndal demoon na ba ràpp nag ba dara nekkatu fi sëñ Ibra Ndar bi mu nekkee xalifa la ñëw fii ci dëkk bi jéem a yeesalaat kër gi. 1923 la ñëw fi gaawaan biñ ñëwee ma sañ Touba nit ñi moom tàmbalee màbb di ñëw maam sant ni ko def fi da nga fiy def rek ca dem ndax soo fi toogee kat nit ñi fekk la fi ca tubaab bi ma naam du xam ni fele la taxoon a jóg kon day jàpp ni da nga génn topp gi la topp giñ la amee woon ci résidence surveillée bi nga nekkoon sëñ tuba daal def ñaan daal di fi ñaan ñaan gi di. départ pour dem dellu ñi njaarim ci kon biir résidence surveillée bi yëpp yëpp yëpp ci kër mu dëkku murit fii la fi teg tànk kon ci loolu nag mooy alaama ñaari guy yi guy yi gi nga xamante ne bi ci biti kër gi la nekkoon bi fi maam si Anta bi fi sëñ Tuubaa taxawee kon ci lañ ko jëmbat pour wan ni fii la taxawoon guy gi ci biir kër gi ci lañ ko jëmbat pour wan fii la taxawoon kon ñaandarga yi guy yi day mandargay ñëw sëñ Tuubaa ci kër gi 1923. bu dee diggam ak Cheikh isaa yàlla da leen a boole ndax Cheikh Issa bi muy ñëw di jaayan si Serigne Touba te jógee ab dëkkam fas lam fas ak baatin bi ko yàlla won ginnaaw bu baayam doon jàng ci fooree naar jooju nga xam ne moom la ñuy wax Mouhamadou Rasid ñaan tam tegtale woon na ko boo watee sa kër da nga fa fekk gan gu góor goo xamante ne bii na nga ko tudde yonent yàlla isa fu turu yonent yàlla isa àgg aw turam dana fa àgg waaye su demee ba mata dal na ba dal jàng ba mokkal ko nag dana la mas a tàggu di seeti nitu yàlla su boobaa na nga ko bàyyi xam ne koo koy atte adduna ak alaxira ba mu fa jógee jëm si ci sëñ Touba fanaan fii ci mbal ci ron déemam googee mu fanaan ak la ko fa yàlla wan ba ñëw di jaayeen seeti ci sëñ Touba fii ci Daaru Xudóos dafa fekk maam Cheikh Anta te maam Cheikh Anta yàlla da ko teel a xéer ci maanaam li sëñ Tuubaa daana wax ma tawfeex ya illa billah seex dafa judduwaale tawfeex ne lu ne def naa ko ci moom ba mu des tawfeex ji tawfeex da ko judduwaale da daan def képp koo xamante ne bii sun borom jox na la ab cër wala nga yor mandarga mu rafet bu legi gisee danaan sëñ Tuubaa may ma kii bi yàlla dogal nag sëñ Isaa ñëw nag jaayanteeg sëñ Tuubaa ak njàmbaar gi mu wan ci bi ko sëñ Tuubaa di bayloo waaru beref woowu mam sëñ gaawaan di ko xool di ko xool ba noppi ba wax ak sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa yeewi ko sëñ sëñ gaawaan daa jóg gunge mu ñëw ne ko foo bàyyi ko mu wax ko ko dama bëgg maam Issa na ko man mii dama laa bëgg ñu fasante kóllëre maanaam kóllëre googu ñu fasante nag ci pas-pasub Serigne Touba nga xam ne ñu ngi ko fasante fii ci Daaru Xudoos loolu da leen a boole ba tax na liggéey bari dañ ko daan seq ndax sëñ Issa da doon jàmbaar sëñ Gaawaan di jàmbaar te ñoom ñaar ñëpp ñu xeej ci sëñ Touba bu ci mujj rek mooy bi ñu exilé maam Cheikh Anta euh, bi ko sëñ Fallou seeti bi muy jóg dafa fekkoon ne sëñ Issa Ndakate moom it moog sëñ Fallou ñoo bokkoon lu tax ñu ñu ñu ñu ñu bëgg a àndandoo dem dem dem dem Mali comme sëñ Isaa ngi njenne lagan sëñ Falloo ngi Madina booba ñoom ñaar ñëpp ci ñi ngi dëkk ci continent bu bu Saloum waaw cercle Saloum lañ dëkk mën nañoo am ay këyit ndax buñ dëkkoon Bawol duñ ko am foofa lañ ñaanee ay këyit nga xam ne ñoom ñaar ñoo waroon a mën a ànd këyiti sëñ fallu njëkk a noppi mu ñëw di tàggu si sëñ Isaa ko maa ngi dem boobu tudd sëñ Gaawaan ñu koy tudd du bari da ko ne ñëwoon naa njenne doon na tàggu si ngir seeti sa mbokk ma ca turu siiw wa ca nattu bu rëy ba waaye fekkuma la fi su ma demee danaa la yóbbaaleen sab nuyoo na xamal naa ma la fekkoon danaa danaa yóbbaale sab yóbbante ba mu demee noon la ko waxee sëñ maam Cheikh Anta na ko Cheikh Issa lay nuyu mu ne ko bis bu yàlla sàkk de ma jot ab nuyoom fii ma toog kon ñooñu eh, lu dëgër boole na leen daal